kon topp ma waaxul topp ma ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno mu leesoo léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga am loo yëg inshallah nga am loo gis bu soobee rab nga am loo yëg dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee yaramu <coughs> moo xam liggéey la moo xam rab la macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax cuuraay bi dafa baax lépp lu mu fekk ci yaramu nit ki daf koy dindi moo xam liggéey la moo xam rab la moo xam jine la bu dee cent la dina génne quatre pour cent macha allah cuuraay bi dafa efficace cuuraay bi macha allah da leen di multiplier par zéro actuellement ñoo ngi koy suur. macha allah nitu wërsëg la vraiment xeex yi bari ñu koy xeex di xeex njagoo njabootam ñu koy dimbali nag di ko macha allah moo defoon barki Dembo Ndiaye signature le contrat de deux millions macha allah nga am na fii deux millions am na trois millions quatre millions cinq millions ba jëm kaw sans dépend sa santé n'est pas de prix. dañ lay faj ba nga wér plein amul dem fii dem feneen non boo ñëwee ci ñun ci ñun ngay yem ñu faj la ba nga wér plein macha allah boo xoolee ñaar nit yi ñu fi faj dafa bari ñaata personne laa faj ba ma dalee faj ak léegi dafa bari mun naa ne genn wàll Sénégal yëpp faj naa leen macha allah. cuuraay bi kii mooy volcan joni joni macha allah. 500 euros lay jar bu dee Europe la 500 euros. parfois ma jaay ko parfois aussi duma ko jaay kurus bi ma yor ni kurusu jinne la am na benn jinne su ma waxoon naa ko jox kurus danaa war ngeen xàmmee ko jinne la kurus bi may ñaanee ci kaw la nekk jinne bi mën naa jël kurusam bi naa ne maa ngi génne woon jinne bi ci xale bu jigéen bi jóge woon Allemagne ci laa génne woon jinne boobu mu laaj ma kurus bi macha allah kurus bi nag gis nga ko palaasu jinne yi la nekk su may su may suur ñi nii fii jinne yi dañuy ñëw assister li nekk ci yaramu nit ki ñu koy rocci ñoom it ñuy def travail li nekk ci yaramu nit ki muy dañ moo tax suur bi may suur fi dafa am solo macha allah jar na milliard suur bi may suur fii nit ñi ci kër gi jar na milliard ma ne la parce que jinne yi dañuy ñëw taxaw yéen nag doo leen gis jinne yi parce que amoo leen xam-xam bi yoroo leen bët yi koy gis waaye man mii jàkkaarloo moom de man mii jàkkaarlook moom man mii nekk ak jinne non yére ngi jël baax cuuraay bi raay bi xale bu am trois ans sax mën na ko sóoroo ñu nga def nii sax ñu pour yu fuur bébé ndànk ndànk saxaar bañ ko sonal il est efficace amul sego sego loo man moom macha allah dama si suur bu baax suma njaboot si suur bu baax a baax parce que xam-xam yi ma composé fii moo bari loolu nag moo jaaxal sëriñ si jaaxal jinne yi jaaxal dëmm yi maanaam li ma mbootu xam-xam bi ma composé ci cuuraay bi dafa bari ñu bari nag ñoo ngi defar cuuraay di ut ay dayu mbaam ak yooyu yi bokk ci lii ay gàncax la yi làmboo xam-xam macha mhm. bu baax a baax ngeen gis na après dina féex dina am jàmm macha allah cuuraay bi je j'aime j'aime cette cuuraay la macha allah. produit bii dafa am solo. bu dee Sénégal deux cent mille lay jar deux cent mille francs CFA. si jinne moom dafa naa ne moom loo ci dóor ak loo ci ñaan moom bal lay doon waaw tey moom dama àbb kurus garab day am njariñ macha allah macha allah moo ngi noonu la de moo ngi moo ngi suur bu baax day génne lépp lépp da koy génne sànni xam nga volcan moom bu yëngoo moom day ñii lay def cuuraay bi aussi c'est important c'est efficace il efficace moo jaaxal jinne jaaxal dëmm yi macha allah macha allah moo ngi jël bu baax c'est importance jàmm rek bëgg a wér rek macha allah bëgg a ah, santé n'est pas de prix di nga fi yàgg lool te ànd ak wér. defe naa Adja Marietou Fall ni mu nekk Ndar defe naa xam na cuuraay bi ndeysaan ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu seen bu Jóob Ndar Adja Marietou ba ko jinne yi sonnalee di ko di ko xëppuloo deret bi di génn ci bakkan yeeg fu ne defe naa ne cuuraay bi laa ko suuroon foofu ca Cambérène ndeysaan ba macha allah léegi mu ngi ci jàmm di ko nuyu bu baax di nuyu njabootam di nuyu mboole mule mule yi nekk foofu ca Ndar bàyyiwuñu kenn waaw macha allah di nuyu taalibe waa national waa international bàyyiwuñu kenn macha allah waaw léegi siggil macha allah ok dimbali la waaw ok léegi dama bëgg après xoolal sër bi ngay def nii rek jërëjëf Sow ñu ngi siyaare bu baax defe naa ne fii léegi ñu miin ko lool di ko gis ci la maraîchage le bureau des dëmm waaye le le roi médecine traditionnelle du monde ndax defe naa ne fii mooy laboratoire bi nga xam ne fii la sëriñ bi di defee li nga xam ne mooy euh, suur bi mu nekk. cuuraayu volcan joni joni bi waaye fi lay defee li nga xamante ne tubaarkàlla mooy baatin bi ndax fii nag tubaarkàlla ku ne jaar na fi la ko dalee 19 ba Cambérène tubaarkàlla ba fii ci cité Djily mbay kon lu yàgg dëgg la waaye defe naa ne cuuraay bi tubaarkàlla saa yu la xeeñee lépp loo xamante ne tubaarkàlla fekk na ko ci yow fii dina ko dindi ba mu set wecc ndax xam ngeen ne jinne yi tubaarkàlla ak dëmm yi nu ne la ñuy mel melokaan bu ne la ñuy am waaye dafa am ci jinne yoo xam ne tubaar kàll dañuy am melokaanu ndox am ñoo xam ne dañuy am melokaanu ngelaw waaye ngelaw loolu nag tax na sëriñ bi defar li nga xam ne mooy cuuraay volcan joni joni cuuraayu volcan joni joni boobu nag defe naa ne wër na àdduna ndax tubaar tubaarkàlla macha allah chaque jour ngeen gis sëriñ bi di wone li nga xamante ne mooy fooram ci cuuraay bi waaye di wone li nga xam ne mooy baatinam tubaarkàlla ndax saa yu lay suur mu ngi lay topp ak kurusam waaye mi ngi lay tepp <laughs> ah tey kurusi jinne la indi ndeysaan gis ngeen ko noonu ndeysaan dëgg la moo nekk nii ndeysaan tubaarkàll ngeen dégg ko noonu wallaay ndeysaan avion day daanu waaw waaw waaw dëgg la waaw Cambérène ndeysaan ngeen dégg ko noonu chaque fois rek moo tax lépp looy gis rek preuve da cee baax gis ne sëriñ bi lépp lu mu leen wax rek boo ko xoolee ci vidéo yi di nga ko gis te saa su rek tubaarkàlla muy continuer di wone li nga xam ne mooy maqaamaam waaye di wone li nga xam ne mooy baatin bi ko sunu borom defal waaye di wone nag chaque jour li muy wax ne euh, liñ koy wax ne ko ko yaay le roi médecine traditionnelle di ko wone ci lépp loo xamante ne rek mi ngi koy def ci wàllum faj ndax defe naa ne tubaarkàlla cuuraayam bi wër na àdduna ndax léegi maa ngi leen di révéler di leen wax ne leen am na ci jinne yoo xam ne wala dëmm yoo xam ne dañuy soppaliku ngelaw waaye defe naa ne ngelaw loolu tubaar tubaarkàlla saxaar si mooy dugg fépp di ñëw fépp di dem fépp tubaar kàll lépp lu mu fekk ci yow waaw incha allahu rabbi da koy daal di génne jinne yeeg dëmm yi lépp loo xamante ne fekk naa ko ci yow rek dina ko daal di dindi ba mu set waaw waaw tubaarkàll fii nag fii la lépp di tubaarkàll xewe ci kër le Marichal waaye le roi médecine traditionnelle di monde mu wone ko prouver ko a chaque fois ngeen di gis muy wone li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xam ne bu am solo la mu koy def nag partout dans le monde waaye àdduna yëpp di ko fi fekk Europe tubaarkàll dañ ko fi fekk Asie dañ ko fi fekk Euh, ba Maroc ba fële ca Gambie waaye ba fële ca Mauritanie tubaarkàlla dañ fiy ñëw waaye États-Unis dafiy ñëw waaye Allemagne dafiy ñëw waaye Belgique dafiy ñëw waaye France dafiy ñëw mu mel ne tubaarkàlla defe naa ne jamono ji ñu toll jamono joo xam ne jamono ju doy waar la ngeen gis ne que ne faaw rek nit ki am wéeruwaay bu wóor am li nga xamante ne mooy ñaan te ñaan tubaar kàll boo ko mënee tubaar tubaarkàlla jarul ngay woo kenn kooku nag mooy la maire Sarr ndax defe naa ne li mu wone ci faj tubaar kàll léegi rek ci ngoon ñu ngi koy waxtaane tubaarkàlla defe naa ne àdduna yëpp gis nañ loolu ci ni mu koy defee ak ni nga xamante ne kàll façon bi mu koy defee mu nekk lu civilisé loo xamante ne jafe na nga gis euh, fajkat buy faj di ko wane di ko filmer début à la fin di la woon fi muy commencé ak yow ak fi muy tàmbalee ba fi mu yegseeg yow mu nekk loo xam ne lu am solo la ndax defe naa ne bëri na ñoo xamante ne sëriñ bi kàll am na fu mu jaar ñoom ba tey jii boo duggee ci YouTube bi da koy gis en direct mu nekk lu am solo loo xam ne jàngale la waaye wane ni nit lépp looy def da koo war a mën tubaar kàll doon ci professionnel doog a won ne maay waaji waaw ñu dog la la mën ne la yow it yaay waaj ndax defe naa ne képp koo xamante ne sëriñ bi jëflante na ak yow tubaarkàlla ka contrat am lay xaatim nga signé ko mu signé ko tubaarkàlla waaye su boobaa nag ah day daal di def liggéeyam ndax da lay topp ko bout kooku mooy alaaj Thierno lay Sow borom doa jaabi borom kun fayakoon borom jinne yi mu mel ne partout dans le monde ñu ngi ñuy sur la TMS TV ci YouTube bi a chaque fois ngeen di gis euh, gars yi di jël numéro bi foofu. Euh, ci écran bi di numéro euh, le maraîchar nga xam ne boo ko woowee moom ngay jot en direct tubaar kàll nga daal di mën a wax ak moom say soxla moo xam bu dee en distance la kàll da koy gérer ak yow même bu fekkee de près nii de loin aussi comme ni ma koy waxee rek day daal di traité ak yow li nga xamante ne mooy sa jàngoro lu mu mën a doon bu dee da ngay seetlu. wala bu fekkee tamit tubaarkàlla da nga am ay jafe-jafe këyit wala tubaarkàlla bu fekkee da ngay samp société ndax defe naa ne bërki Dembo Njaay gis ngeen ci euh, video yi tubaarkàlla ni mu ko doon waxee defe naa ne fii keroog def nañ fi contrat boo xam ne c'est euh, sept millions ak huit million bëri na du jeex pour rek juste pour nit ñi xam tubaar kàll ak wane tamit li nga xamante ne mooy mën-mënam te loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la te loolu tamit dafa bokk ci loo xamante ne ci profe la bokk parce que nit ki hmm, dégg ko noonu nga gis ne cuuraay bi kàll bu la ko suuree da ngay daal di ñaq waaw bu dee ci bët yi dangay gis bët yi commencé jooy commencé leer kàll nga daal di nag gis li nga xamante ne mooy ak tan ndax cuuraay bii nag kàll li muy def ci doomu aadama bari na waaye li muy dindi ci doomu aadama tubaarkàlla bari na moom mel ne que ni nag ah yi nag ah kàll dañoo mën a toppandoo waaye kii moom neexut a toppandoo parce que ay mbiram tubaarkàlla da ko filmé ko war waaw waaw diw maay diw tubaarkàlla taxut nga raw ci diw waaye defe naa ne alaaj ca lu mu lay soo tubaarkàlla li mu wone leen ndax defe naa koo xam ne tubaarkàlla lépp looy def koy filmé ah defe naa ne kooku moom neexut a neexut a tuumaal mu mel ne nag fii ñu toll nii tembe tembe kàll defe naa ne YouTube bi tubaarkàlla toj nga ko waaye Snapchat bi waaye TikTok bi tubaar tubaarkàlla ci li nga xamante ne mooy ñaan ak seet waaye ak li nga xamante ne nag mooy samp li nga xamante ne mooy société waaye ñaanal. koo xam ne day lijjanti ay këyit tubaarkàll léeg-léeg nga gis nit daw ci Europe bi ay at yu dul jeex mënta am këyit waaye defe naa ne bu jàkkaarloog yow rek tubaar tubaarkàll dañ koy daal di may këyit ci lu gaaw bu dee pa gis ngeen bërki démb vidéo boobu dugg waaye di doon passé permis te xam ne permi Europe lu compliqué la lu jafe la maa di Touré mu lee tubaarkàll ngeen gis ko mu yëkkati ay kàddu cant noonu di sant sëriñ bi ci ñaan gum ko ñaanal ne ko demal tubaarkàll da ngay daal di am kàll yàlla sunu borom nag subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo jeexalul dara di azza wa jalla nga xamante ne lu mu namm ci doomu aadama rek tubaarkàlla da koy daal di def mu daal di jël sëriñ bi tubaarkàlla jox ko li nga xamante ne nag mooy baatin bu wér boo xam ne moo tax tey jii loo xamante ne song na ko rek mu daal di koy daan na mu waree loolu nag yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne kàll moo ko ko jox muy lu wér. nga xam ne kenn mënu ko cee toppandoo moom rek moo koy def loolu nag mbirum sunu borom subhaanahu wa taala la mooy ki nga xamante ne tubaarkàll mooy joxe di maye kàll kuy ñaan moom ngay ñaan waaye moom it sañ naa tibb joxe waaye mu tibbal ki nga xam ne nag mooy alaaj seenu mu lay sow tubaarkàll mu wone lu ne ci faj defe naa ne ki dem bay faj gratuite kenn mësu koo ci àddina ci li nga xamante ne mooy médecine euh, traditionnelle ndax defe naa ne médecine traditionnelle musuma dégg ku ci woote consultation gratuite moom moo ko def plus de quatre fois donc mu nekk lu raar jafe loo xamante ne kenn mësu koo dégg ci àddina dajale mbooloo mu bari lu tollook juróom fukki nit wala téeméeri nit daal di leen di faj ci benn tàkkusaan woote ko ci stade àdduna yëpp di ko seetaan defe naa ne loolu ci man la bokk ndax boo mënul woon doo engagé loolu defe naa fii ba Kaolack dem nga fa tubaarkàlla Euh, bari na ci ñoo xam ne tey jii say taalibe lañ te foofu lañ jaare woon sëy buñ mës a dugg jinne yi tas ko liggéey bu su mën a am tubaarkàlla ñu dàq leen fépp foo xam ne dem nañ fa duñ leen jublu tubaarkàlla fu ñu nekk di xuloo ko xeexoo fu ñu nekk di werante fu ñu nekk duñ leen bëgg ñu leen di bañ loolu nag tubaarkàlla sëriñ bi mooy ki def luuma jinne bari ñoo xamante ni consultation gratuite la woon fële ca Kaolack tubaarkàlla tuubal li ne ci ñoom dugal ko ci diine lislaam rocc ko ba mu set we ci ñoom gratuite ne bëgguma ci jërëjëf bëgguma ci merci bëgguma ci dara waaw def naa ko daal te yàlla tax kooku nag mooy euh, alaaj Thierno Moulé Sow le roi médecine traditionnelle du monde nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bu la mayee da ngay am sañ-sañ te defe naa ne ku woote ci stade ngir faj foo xool nga gis nit tëdd foofu jaaxaan loolu du caaxaan kon Euh, nañu santaat yàlla bu baax sant sunu borom subhaanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne yàlla li mu yor ay magasin la du jeex ndax nee na man maay borom lépp maa sañ lépp ma mën lépp kooku nag mooy Azza wa Jalla moo ko def nii nga xamante ne tubaarkàlla ni la mel di dimbali jaami yàlla yi di faj seen aajo tubaar tubaarkàlla ñuy jóge partout dans le monde di ñëw di ko fekk fii nag loolu nag tubaarkàlla ku yàgg moom du la jaaxal ndax am na ñu fi ñëw am fi une semaine am na ñu fi ñëw def fi weer tubaarkàlla waaw waaw am na ñoo xamante ni tubaarkàlla mën nañoo ñëw def fi weer tubaarkàlla am na ñoo xam ne ni tubaarkàlla mën nañ fee ñëw def fi semaine am na ñoo xamante ni ni tubaarkàlla mën nañ fee ñëw def fi trois mois loolu nag tubaarkàlla sunu borom moo ko ko jagleel partout dans la monde di ko wër mu mel na ne kàll fii ñu toll jamono ji defe naa ne nag ah, roy du nuroog pire ndax gis ngeen chaque fois ngeen gis euh, fu ne nit ñi di fa jóge di ñëw fii ci clinique bii nga xam ne mooy Daaru Laay euh, national euh, di fi nga xamante ne kàll mooy cité Jili Mbay boo fi bëggee ñëw bu fekkente ne da ngaa jógee côté Ngor boo ñëwee ba Philippe Madeleine sengoor rek da ngay daal di jël yoonu joor bi daal di ñëw Jili Mbay boo jeexalee balaa ngay jeexal miiru armeel yi dernier euh, tournal bi boo duggee rek tout droit ci sa droit ci sa gauche du moins yaa ngi jàkkaarloog photo mi noonu jàkkaarloog immeuble bi bu dee nag tubaarkàlla da ngaa jógee côté bi nga xamante ne mooy parcelle boo ñëwee juste ci Brioche doore bi da ngay compter première mbedd deuxième troisième mbedd bi boo ko jubalee tout droit à ta droite yaa ngi jàkkaarloog li nga xamante ne mooy immeuble bi foofu nag ah, mooy clinique Daaru Laahi ci jàmmalaay ah, ci cité Jili Mbay tubaar kàll ngeen gis ne sëriñ bi tubaarkàlla def na fi xaalis bu bëree bari macha allah le jeune milliardaire le maléchar mais le roi médecine traditionnelle du monde nga xam ne fu ne la nit di jóge di ñëw di ko fekk fii mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que mën moo ko yóbbu foofu du publicité du ay poster du par parlo du dara tubaarkàlla mën li muy def moo ko yóbbu foofu ak gëm boppam gëm ne lii mu yor yàlla suñu borom moo ko ko jox te mën na ci wër àdduna parce que mi ngi ciy def àdduna mi ngi ci àddunaa ko fi fekk ndax tubaarkàlla defe naa ne Europe nga ko fi fekk waaye Asie ñu ngi ko fi fekk waaye États-Unis ñu ngi ko fi fekk waaye France ñu ngi ko fi fekk Belgique Canada comme ni ma koy waxee chaque jour nga xam ne kat sëriñ bi yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki ko jox li nga xamante ne moom la yor waaw lool nag day mbiri sunu borom waaw lii nag mooy cuuraay volcan joni joni nga xam ne fu mu fekk dëmm da koy dàq dindi ko waaw li nga xamante ne tubaarkàlla nag mooy cuuraay volcan joni joni bi ah tubaarkàlla macha allah gaa yaa ngi koy commandé fu ne nag mi ngi dem partout dans le mond foo xalaat ci àddina rek cuuraay bi ma ngi fay dem ndax nag GP baa ngi fi. te boo contacter sëriñ bi tubaar tubaarkàlla foo mën a nekk ci àddina dina ko takk ba mu dëgër yaa xam nag loo ciy commandé am na bu ñuy sangoo waaye am na bu ñuy naan waaye am na bu ñuy suuroo kooku nag kenn képp dong moo ko am muy alaaj seenu mu lay sow ku nekk ngi jàmm nag waaye lii ma lay wax tubaar kàll boo ko suivre ci youtube bi di ko gis am na ñoo xam ne dugg nañ ci restaurant wala ñu dem ci kër ñu jox leen lekk goo xam ne def na ci seen i biir ay at di leen travail bu yi duñu gis dara buñ demee ci li nga xamante ne tubaarkàlla mooy ah, ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ay du ñu gis dara bu ñu demee rajo duñu gis dara fu nu mënti dem partout dans le monde duñu gis dara boo ñëwee ci alaaj ca nu mu lay sow tubaarkàlla ba dagg sa billet ba mu consulter la ba ne lii ak lii moo dal bu yeboo nga faye ko bor kooku nag mooy alaaj ca nu sow bu la xoolee nag tubaarkàlla ba xam ne yow mii war ngaa suuru tubaarkàlla da lay daal di suur nag bu la suuree lépp loo xam ne ci bët yi la nekk wala ci biir bi la nekk tubaarkàlla da nga koy daal di wàcc fa saasi kooku nag mooy alaaj Thierno Moule Sow kooku nag yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ko defal defe naa ne cuuraay bi nag àdduna yëpp xam nañ ko koo wax mu ne la borom cuuraay bi waaw cuuraay bi nag moom moo lëmbe àdduna ndax cuuraay bi tubaarkàlla dëmm ñemewu ko seytaan ñemewu ko waaye li nga xam ne mooy rab tamit ñemewul cuuraay bi te cuuraay bi bu fekkee làmmiñ yi dañoo bari ci yow moo xam cat di la gàllankoor di la yàqal say place liggéey ñëwal seet si alaaj mu lay Sow borom duwaa jaabi borom kun fa yakun kàll waaw te baax na ci nawet bi ñu ne ngeen dégg ko noonu waaw macha allah Matar cuuraay bi dafa efficace xam nga nawet bi ñu nekk nii hmm. dëmm yi dañuy ruube ak jinne yi boo gisee accident yu bëri yi sog yu bëri yi dee yu yi hmm. dañuy profito mais gis nga kii bu nekkee suuru nga ko ngay voyage euh, dëmm yi ak jinne yi maanaam xet bi dafa leen di déranger bu nekkoon un kilomètre ngeen di ñëw ci o nga ne nga suuru ko yëg ci oto un kilomètre mm. un kilomètre la leen xet bi di commencé xeeñ parce que kii dafa am benn odeur bi nga xamante ne dëmm yi xam nañ ko ak jinne yi ñemewuñu ko waaw fu mu leen xeeñoo ñu abal la dafa am solo cuuraay bi dafa baax boo ko suuree du bàyyi du teel a bàyyi sa yaram bi day waaw cuuraay dafa baax day daq lépp luy seytaane lépp luy dëmm lépp luy jinne dañ mënuñu nooyi cuuraay bi mënuñu ko nooyi. Ah, c'est efficace. kon tey balaa ngay xam loolu nga dëkk ak dëmm. ngeen bokk benn kër. boo ne woon pëy cuuraay bi dalay abal. du du noqi. day daw waaw day noqi. kon mu mel ne baax na ci kër ndax am na kër yoo xam ne dañuy tàkk te kenn du xam lu ko taal. waaw baax na waaw léeg-léeg day am kër yi tax kenn du xam li ko taal jinne yi la ak rab yi la waaye cuuraay bi tànk moo ngi xeeñ foofu chaytaane euh, yi dañuy daw parce que arrangé wu leen macha allah ngeen dégg ko noonu rek muy doole dëggal li nga waxan li nga xam ne moom laa doon wax léegi rek te nawet bi ñu toll nii comme ni mu ko waxee woon gaa ñi dañuy ràkkaaju ndax defe naa ne def nañ fii émission mu ne nawet bi nag ah dana doy waar faawu gaa yi fagaru ndax nawet bi lépp ay yëngu accident yi surtout insister foofu defe naa le tubaar kàll ci lañu gis ne que ne am na accident bu am fële ca booru Louga mu nekk accident bu metti boo xamante ne la ca gaañu maara day taali yàlla na ñu yàlla ump loolu te defe naa ne tey la ko wax le lendemain loolu daal di am ah, defe naa ne sax video yi gars yi dinañ ko gis ndax ah, dañ ko waroon dugal waaw fi mu ne nii da ngay daal di sentir li nga xamante ne waaw ndeysaan dégg nga lool gis nga ko ni mu ngi ñàkk tooy xep tubaarkàlla ngeen gis ne jamono bii ah, mu ngi koy suur ni ngeen gis ko bakkan yeeg lépp a yëngu mu ngi nii ñàkk tooy xep parce que tamit li nga xamante ne tubaarkàlla dafa nekk ci yow yàgg ci yow waaye kii nag moom defe naa ne sëriñ bi miin na di ko euh, defal ay jaam yàlla partout dans le monde ñu fay jóge ngeen gis tubaarkàlla bu la suuree beneen melokaan ngay yor sa yaram bi yëpp day ñax lu mu fekk ci yow da koy yëngal du koy dindi tegee ko tubaar kàll ngeen gis ko nii mi ngi nii ñaq bay siit xoolee xal yi waaw juste rek waaw waaw xal yi bariwul waaye bu ko cuuraay bi duggee rek tubaarkàlla beneen kii lay daal di doon ngeen gis noonu Euh, dans un premier temps ngeen gis yooyu foofu pare na defe naa ne instant bi lan nga sentir. <coughs> lu génn ci man nga xam ne doo mën taxaw. bi dafay lox. saa yi loo sentir ci bopp bi. féex na ba pare dama doon mel ne lu luy bëgg a wàccu. ko nag gis ngeen ko boo ko noyee cuuraay bi nee naa leen lépp lu mu fekk ci yow su fekkee lekk la boo xam ne reesul wala leneen lu mu mën a doon loo xam ne dëmm da ko installé ci sa biir wala rab wala jinne cuuraay bi bu la xeeñee loolu boo xefee da nga koy wàccu waaw automatiquement danga koy daal di wàccu wala nga mel ne sa xel mi day bëgg wëlbatiku nga mel ne luy bëgg a wàccu loolu nag cuuraay bi moo koy def parce que kurtu karta yi muy fekk ci biir yëpp da koy mélangé génnee lépp tubaarkàlla defe naa ne instant bi nii sëriñ bi bëgg na ko dolliwaat tuuti cuuraay parce que fim ne daa bëgg mu woyof tooy ndeysaan waaw ngeen gis noonu la Maré Sarr tubaarkàlla di def li nga xamante ne macha allah mooy tubaarkàlla cuuraay bi cuuraay bi nag nekk loo xam ne lu am solo la ndax euh, cuuraay bi lëmbe na àdduna waaye cuuraay bi sonal na dëmm yëg jinne yi tubaarkàlla ndax xam naa ne cuuraay li moom saa la xeeñee rek macha allah. da dëpp waa da ci waaw. waaw mu ngi soulagé bu d'abord waaw loolu di lu am solo ngeen dégg noonu sëriñ bi comme ni mu ko waxee waaw muy lu am solo tubaarkàlla ndaxte cuuraay bi dafa am solo efficace macha allah nga xam ne saa yoo ko suuroo rek macha allah lépp lu nekk ci yow da koy daal da koy daal yëngal kenn képp moo ko am muy alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàll bu ne nag danga ko dégg ñii ngi jàmb ay fël-fël ñii di wut lu ne xobi lori yéeg alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàll garaba ba ngi noonu gis ngeen ko moom nee na yooyu nekku ci waaw garab baa ngi nii lu mu gën a yëngu nag di gën a fuur sëriñ bi yor na yëngalukaay boo xam ne bu ko ci tegee bu ko yëngalee tubaar tubaarkàll day fuur ba ca kaw waaw kii nag tubaar tubaarkàlla boo ko laalee rek tubaar tubaarkàlla macha allah sa nang cay set wecc daal di nag yokk yokku u ubbeeku mooy garab gii ngeen di gis tubaar ah nga xam ne partout dans le monde ñu ngi koy wër waaye àdduna ngi koy wër waaye ndeysaan alaaj ca nu mu lay sow ku ne koy fekk fii mu leen di ñaanal bu baax ay eh, ngaang di ko wan muy jàll waaw muy jàll ci sa biir waaw nga loolu da ci am solo bul bàyyi waaw cuuraay bi cuuraay bi waaw gémmiñ nga koy nooyee muy jàll waaw waaw waaw nooyul bu baax waaw <sighs> danga koy nooyee gémmiñ bu baax ñu ngi ciy bànneexu waale <laughs> man nga xam ne fan yii rek maa ngi ci doon jëm <laughs> waaw mu am solo lool waaw na wàcc bu baax waaw waaw waaw mu nekk loo xam ne lu doy waar la loo xam ne tubaarkàlla boo ko dee siiwal waaw. dëgg la. wàllu ñaan dëgg la. fi dëgg la. yii dafa am solo boo koy def da day boo xam nga dañuy wax euh, macha allah gudd fan gudd dañ koy ñaan mun nga ñaan yàlla di gudd fan waaye ñaan yi tamit soo koy def ah. da lay guddal fan ndax li la nar a faagaaga li la nar a li la nar rey su nekkee ne yaa ngi sangu yaa ngi suuru yaa ngi ut ay ñaan sa yaram loolu dana yokk sa fan su nekkoon ne fan dafa naroon gàtt maanaam jinne yi dañ la naroon sacrifice wala dëmm yi wala rab yi booy def ñaan yi tout temps dana gën a yokk fan bi parce que sinon da ngay gis nit ki nga xamante ne ndeysaan euh, feebarul dara dalu ko gaa yi song ko attaque ko feebarloo ko tëral ko daaneel ko ray ko mu daal di faatu mais boo amee yi daf lay aar daf lay sauver mu mel ne kon am na dee yoo xam ne daal naturelul. non non non man du dee yëpp laa nangu am na ay dee yi nga xamante ne naturelul maanaam nit ki moo tax nit ki tout le temps war nga def sa yaram daal di suuru di sangu dafa am solo. parce que dee yu bëri naturelul. rawatina nawet bi ñu nekk nii. jinne dañuy ràkkaaju ak dëmm yi. soo amul protection rek. boo mu nooyee bopp rek yow yow dañ lay sacrifice. Mm. ngeen déggee ko noonu tubaarkàlla ki nga xam ne mooy borom jinne yi. waaw waaw dëgg la ngeen dégg loolu dëgg la ba pare tamit gaa yi léeg-léeg sëriñ bi nit day xam rek ñu daal di yóbbu suuli de kon war nañoo amus ndéggandiku de waaw mel ni deewee dañ leen di jàmm suuli leen ko suuli leen ko bu nit deewee normalement war nañ ko bàyyi vint quatre heures ci morga yi morga lan mooy njariñam pour loolu bu nit ki deewee ñu bàyyi la ci morga gi ñu xool def xool ba xam macha allah nit ki génn na àdduna su génnee àdduna ñu defar ko mais boo deewee léegi léegi ñu suul la léegi léegi loolu rafetul dañ ko war a arrêté parce que morgue yi pour loolu la bu nit ki deewee ñu yóbbu ko ci morga mu fanaan mm. ba heure bu mu gaañoo mm. wala ba ëllëg sa su ko defee ñu vérifier xool mais bu nit ki faatoo bu faatoo suba balaa 14 heures ñu ñu ñu rob ko wala bu va bu bu faatoo 14 heures balaa 5 heures ñu rob ko loolu war nañ ko xool daal waaw loolu war nañ mën a bàyyi xel parce que dëmm yi dañ lay fatt def ci yow dara fekk yow deewoo léegi bu ñu demee gas suul la ba ci xaaju guddi gi ñoom dañuy ñëw sulli la bu ñu la sullee ñu daal di lay saam ñu daal di lay lekk loolu nag ci xam-xam la ku amul xam-xam nag mënoo comprendre li may wax ndax dëmm dafa am ndax nag am na kenn ki nga xamante ne ndeysaan ngoola dañ ko fattoon ba dafa dee woon carrément sama kër lañ ñëwoon faju woon na carrément yaayam di yuuxu ñëpp di yuuxu defe naa ne ma def ay ñaan amul lu ma deful ba yàlla dimbali ma ba xale bi dekkiwaat defe naa vidéo yaa ngi YouTube kon moo tax nit ki warul dee kese warul warul warul dee rek ñu dem ñu dem ñu dem suul nañu bàyyi vingt quatre heures hmm. quarante huit heures ñu xool waaw waaw ba xam yenu na maanaa wala yenuwul maanaa mais Sénégal nag boo deewee rek nit yi dañ lay fàtte dañu duñu wax tur bi sax dañuy wax néew bi néew bi su ko defee ñu dem suuli waaw yàkkamti ñëw dëj yàkkamti macha allah yooyu yooyu amul sant bu nit ki faatoo nañu ko bàyyi benn vingt quatre heures wala benn quarante huit pour ñu xool ba xam dafa fàtt wala dafa dee bu deewee nag macha allah ñu ñu defar ko jébbal ko boroomam c'est important nit bañ a faatu rek ñu dem suuli la. ngeen dégg kàddu yooyu jóge ci ki nga xamante ne mooy le roi médecine traditionnelle du monde il a prouvé ça aussi et il a montré ses preuves partout dans le monde dans le YouTube ngeen koy gis noonu gis nga ko noonu defe naa ne fi mu ne nii moom yow lañ doon suur de ana yëg. boo oyofee da nga koy yëg da nga du mhmm, naa ko kay mhmm, mhmm, na kay mu mel première partie bi moo jàll des ne deuxième partie bi ndax defe naa ne am na ay sangoog yooyu waaw tubaarkàlla ngeen gis ko noonu dégg nga ko mu ne yaram bi oyof na tooy bopp bi oyof na ah. diis bu nu mën a dox. moo la daan mhm. mm, waa kër sa dañ may bu ñu la gisee ngay dox di dem dañuy xam ne am na lu nekk ci yow. mu mel ni ku yëg poids. que boobu dañ laa mhm. mhm. yëg da ngay yëg da ngay xaw ma cuuraay dafa am manta xaw ma. amul mante de cuuraay am ah dégg nga mu ne euh, ah. na fraîcheur fraîcheur quoi ah, parce que xam nga bu yaram bi diisee ah. nga da ngay luur mel ni mbaamu sëf doo àttan sa sa yaram mais gis nga boo suurwee da ngay oyof toll da yëg neex xam nga neex sa yaram maanaam xam nga santé kii euh, nu ñu ko wax ne moom sa yaram dafa neex da ngay dañ maanaam cuuraay bi dafa lay libéré dafa libéré maanaam dafa lay libéré cuuraay bi loolu ah parce que da ngay xam ni am na pois bu deñ léegi nag ngay xaw a mel luy lox waaw parce que euh, li doon du diisal dafa deñ gis nga xam nga deux millions te magum jëmm la te mag buy naan suuf buy naan café suukar moo tax lu ne fàng nag kenn du ko jeex te mag aussi ci ci ci ci ati dëkk bi lañu bokk tey njaboot gi bëgg nañ bëgg nañ bëgg nañ mu yàgg fi loolu ba ñu fekkee ba moom mu fekkee seen njëriñ moo tax euh, bul nekk mag rek ne ah man kat mag laa léegi du du ma faju déedéet sa nja loolu àq la waaw ah, war nga mën a faju pour sa njaboot mën a fekkee Euh, ñu nga fekkee sa njëriñu njaboot c'est importance kon nag mun nga jóg ñu jàppale la sio bi nga dem sa toilette nga sangu foofu macha allah toilette bu muy dem moom rek moo fay dem mu sangu parce que boo suurwee ba pare après da ngay dem nga jël garab bi nga daal di sangu te xam nga ne wax naa leen cuuraay bi volcan la te nee naa leen lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy dindi kon nag macha allah champion Konaté mun nga ko jàppale sio bi. waaye jërëjëf ngeen gis noonu. waaw amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf waay ngeen gis ko noonu dégg ngeen comme ni mu ko waxe waxee tubaarkàlla muy lu am solo. dëgg dafa am mante amul mante mais loolu ngay yëg neex neex. waaw neex neex cuuraay bi dafa dafa dafa garaaw. waaw incha cuuraay bi dafa boo ko bu maanaam. Euh, yaram bi bu diisoon gan. gan soo ko suuroo. Hmm. da ngay oyof toll maanaam da ngay yëg neex daal. maanaam da ngay sentir sa bopp. da ngay da ngay soulager su ko defee nag. mooy neex neex boobu ngay yëg sa yaram. maanaam da gis nga ko nee na bu musaan dox di dem. dafay diis. dafay luur waaw parce que boobu du moom. dafa am li ñu ko yenn. dafa am lu nekk ci moom. léegi nag loolu daf koy sonal. daf koy indil jafe-jafe. mais nag bu xasee ba suuru comme nii. loolu day deñ bu ko defee nag dangay ngay yëg neex-neex maanaam mooy oyof soulagé mu ngi mel ni nga oyof soulagé da ngay kontaan daal sa xol mooy neex waaw nekk lu am solo te defe naa ne ni nga ko waxee noonu la ko waxee ndax dégg ngeen ko mu ne man kat sama yaram bi moom oyof na tooy sama bopp bi oyof na instant dama oyof ba damay wax parce que dafa mel ni instant yi xottu la te bu doon dox sax pour mu yëkkati tànk yi problème la gis nga ko léegi dafa dox normal daal di dem tubaarkàll defe naa ne nag partout ñu ngi ñuy suivre sur la TMS TV toujours la avec la khalife général des djinns le roi médecine traditionnelle du monde il la il a remontré les preuves partout dans le monde dans le YouTube partout partout ñëpp di ñëw macha allah almaa yi ñëpp a ngi ñëw macha allah kooku nag mooy alaaj la Moule Sow le maréchal defe naa ne lu ne fànn kenn du ko jaax dégg ngeen léegi magum jëm moo toog fii di kilifa tubaarkàlla wax li mu wax ngeen dégg ko ñëpp. ne maa ngi nii oyof tooy bu ma daan dox sax dañ may xool di ma yërëm waaye defe naa ne tubaar tubaarkàlla cuuraay bi nag ah alaaj seenu mu lay sow dong la ko yàlla jox te defe naa ne ba mu dalee wax ne cuuraay volcan joni joni la lépp lu mu fekk ci yow dina ko écraser dindi ko ba mu set wecc kooku nag mooy la tubaar tubaarkàlla mu mel ne nag fii ñu toll nii am na ñoo xam ne dañ doon wax naan est-ce que commande yi ñu ngi koy def ba léegi wala da ngeen koo wala ko faju rek moo koy am xëy na tey am nga ay éclaircis yoo xam ne mën nga lañ coo jox partout dans le monde ñu lay déglu. waaw macha allah Matar commande yi ñoo ngi koy def ba léegi parce que cuuraay bi moo ngi dem partout dans le monde am naa fan yi commande yi war a dem. après incha allah dinaa préparer pour jox. champion Konaté mu envoyé ko GP kii euh, ci DHL e léegi am na commande yu bëri yu war a dem ñi ñaa ngi koy jënd muy vite fait bi hmm. am nañu commandé vite fait am nañu commandé aussi volcan bi am nañu commandé aussi ay t-shirt ay ay ay photo macha allah ay porte-clés ñi ñaa ngi commandé parce que xam nañ njëriñ produit Thierno moulet dafa am njëriñ produit la dafa maanaam dafa am barke déjà première mooy barke bi quoi hmm. dafa am barke barke boobu nag macha allah defe naa ne ku ko laal da nga koy gis hmm. defe naa ne barki Dembo Ndiaye la ñëw dafa addiya deux euh, deux millions. pour ñu faaj ko gis nga dañu koo suur. nga laaj ko mu ne la moo ngi yëg. mu ngi oyof mu ngi yëg mant xam nga mant. boo demee ba yëg mant rek mooy yaa ngi yaa ngi yaa ngi ok. yaa ngi yëg neex neex kon nag. macha allah su ko defee xam naa ne dinañ dugg ci biir am na ay cadeau yu ma indil après. bu ñu duggee léegi ñu xool cadeau yi ak am na xaalis aussi. yi nga xamante ne waa international aussi yónnee nañ ma ko. valeur de 15 millions macha allah yëpp ci wàllu ay faj. fii laay toog ñu may yónnee xaalis. comme ni ma koy waxee rek. Euh, instant bi nii wane nañ wane nañ suñu bopp ci faj. fi nga xamante ne vraiment. Mm, waratuñu def erreur te du ñu def erreur. macha allah dañ koy teg ci yoon dimbali jaam ñi. parce que yaakaar dafa foor nit day nekk bitim réew am ci yow yaakaar yónnee la ay million defe naa ne yow bokk nga ci ñi may yabal yow ak konaate ngeen dem di ma retireel xaalis parfois sax bu ma sawaree gunge leen ay millions yu bari ngeen may indil parce que dañu may envoyé xaalis pour ma jàppale leen parce que bu lu ne fàng kenn du ko jeex waaw waaw kon nag moo ngi noonu vraiment xam naa ne mun nañ dugg ci biir bu ñu duggee ci biir incha allah après ñu xool cadeau yi ak ak yóbbante yi ah. jërëjëf ñu dellu si waat rek euh, sur la TMS TV ak alaaj Thierno Moulay Sow tubaarkàlla ngeen gis ko noonu suuru na ba pare ba dem sangu ji ba ñëw kàll ngeen gis ko noonu lii nag mooy garab yi nga xamante ne mooy garab yi ko sëriñ bi di jox macha allah moom lay bind noonu euh, mu nekk lu am solo loo xamante ne tubaarkàlla chaque jour miin ngeen di ko gis fii ci kër gi ndax boo suuroo ba pare sa yaram woyof ngay daal di dem sangu soo sangoo ba ñëw nag sëriñ bi doog laa jox li nga xamante ne mooy garab yi tubaarkàlla nga daal di koy mën a euh, bind xam ni nga koy jëfandikoo macha allah mooy garab yi nga xamante ne moom la sëriñ bi di composé ak xam-xam ak baatin macha allah ngeen gis ko noonu euh, le maréchal waaye le roi médecine traditionnelle du monde mu nekk loo xamante ne vraiment lu am solo la parce que gis ngeen ko noonu léegi rek bi muy suuru mi ngi wax ne man maa ngi sant bu baax maa ngi oyof daal tubaarkàlla ngeen gis ko noonu lii nag mooy garab yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox mu fas yéene bind ni nga xamante ne bon moom la koy utiliser pour mu mën ko xam mu nekk lu am solo macha allah waaw ngeen ñuy suivre fii sur la TMS TV macha allah ak alaaj Sëriñ Moulay Sow king of the king king all king mu nekk lu am solo loo xamante ne vraiment macha allahu maa ngeen gis noonu soxna si muy bind noonu comme ni koy jëlee mu nekk loo xam ne vraiment am na solo lool daal jërëjëf ngeen gis cuuraay volcan joni jooni baa ngi noonu waaw moom it la ndaxte lépp lu mu ci munti doon rek sëriñ bi di koy daal di eh, topp ba keroog muy egg ca cëppaa ndaw li mu nekk loo xam ne lu am solo la macha allah. garab yaa ngi noonu macha allah. jërëjëf. macha hmm. allah ngeen gis ko noonu la defe naa ne fi mu toll nii sangu nga ba noppi waaye suuru nga tamit ana tey loolu mën a wax ci garab yi nga xamante ne laal nga ko muy cuuraayu volcan joni joni bi nga xam ne tubaarkàlla day écraser bopp jinne yi di dindi lépp loo xam ne rek maanaam dafa diisal yaram bi wala lu jëm ci jàngoro yi nga xamante ne tubaarkàlla ñooy topp nit ñi rawatina jinne yeeg dëmm yi ana lan nga yëg instant bii nii wa rahmatulah taalaa barakaatu. waaleykum salaam. man de sànq rek bi may yéeg. waaw. mënuma yéeg bu baax sax par benn tànk laay wàcce. dëgg la mais léegi maa ngi yéeg ne. Hmm. maa ngi wàcc di yéeg normalement. Hmm. diis diis te lii dafa yàgg si man. dëgg la. damay diis bu ma ne la guddi damay agité. Hmm. ci sama mbokk yi ba leen laajee seen xew yi ba duma ci dem parce que tout le temps damay feebar. duma xam ne feebar di gis lu nekk nag. dëgg la. du di gis am ay forme yoo xam su ma gis dama naan xanaa lii jinne la. dëgg la lu ne laay gis lu ne. ci guddi gi daal. damay toog nii di ko jeneer nii. toog nii di ko jeneer dëgg la. wante bi ma suuroo fii. da ngay yëg ni dafa am poids bu tegee sama kaw ba nga xam mënutuma téye sama bopp. dëgg la. mel na luy lox. macha allah. gis ngeen ni mu doon ñaxee. dëgg la dëgg la waaye. mu ci jógee ba sangu. waaw sama tànk yi macha allah. macha allah. macha allah muy lu am solo. yàlla yàlla nañu yàlla boole lafal cat rek. amiin amiin amiin yàlla saxal leen si liggéey bi ngeen di dimbale doomu aadama. amiin solo la. dimbale doomu lii moom dimbale doomu aadama la. dëgg la macha allah sa yaram. dëgg la ko mën sa wax. dëgg la. ki mën faj rek moo koy gis ne la lii lii te lii na yàgg na ma ko wax te du moom sax rek moom ma ko wax. dëgg la fu ne macha allah. yàlla na lafal leen cat may ñu gudd fan ak weer. amiin amiin ñëpp. amiin gunge leen ba ci kanam. amiin amiin yaa rabbal aalamiin du question mag bi dafa jóg rek. dëgg la pour wut dara wala dara. dëgg la lii nga julli ci jaamu bokk. dëgg la ci jaamu. Mm-hmm. mission bi la yàlla jox. Mm-hmm. mooy sàmm njaboot nga def ko ci jaamu. dëgg la am yaamu doo nelaw. dëgg la. man de ku ma déggal. film bi nii. Mm. du dara de. seytaan yi dinañ la bàyyi dinañ xam ne am nga sëriñ. dëgg la. xam ne. la xam nga foo nekk. dëgg ñu bon ñi def. dinañ ko bàyyi dinañ ko bàyyi. jërëjëf moo tax amuñu dara luñ ciy rëccu luñ ci mën a dolli rek dolli ko ci. dëgg la allah incha allah yàlla na continuer di ki ñëw. dëgg la aar suñu bopp continuer aar suñu bopp aar suñu njaboot. dëgg la ndax yàlla jàppale leen. dëgg ñëpp. dëgg macha allah moom mel ne kon lii nga xamante ne mooy garab yi la sëriñ bi jox bu ci nekk rek. Mhm, moom nga doon xaatim noonu pour xam noo koy jële macha allah muy lu am solo. Mhm. defe naa tànk yi moom mais mosulaa tëral dana nga daan santi ne dana daan métti rek. tànk yi ah, dëgg la. macha dëgg la mhm. macha allah. moo tax ndax cuuraay bi daa am mant. <laughs> nee na ndax cuuraay bi daa am mant. waaw loolu la sëriñ bi di wax mooy maanaam cuuraay bi bu fekkente ne sa yaram dafa am lu ci nekk wala am luñ la def wala moo xam jinne yi la wala dëmm yi la wala rab yi lu mu mënti doon mm-hmm. boo suuroo rek automatiquement loolu day daal di génn ci yow. loolu nag mooy cuuraay bi tubaarkàlla ngeen gis noonu ci kaw taabal bi nga xam ne sëriñ bi moo koy composé ak xam-xam ak baatin macha allah mu nekk lu am solo loo xamante ne vraiment àdduna yëpp a ngi koy commande partout dans le monde cuuraay bi ngeen gis dafay dem mm-hmm. waaye vitrine bi dafay dem mm-hmm. waaye porte-clés yi dafay dem waaye photo yi tamit mm-hmm. macha allah dafay dem waaw te defe naa ne instant bi moom yëg nga oyof tànge bu baax a baax sentiratoo dara loo xam ne ci sa yaram la nekk dina metti macha allah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am contentement vraiment ci jox la ay question waaye nag ma nuyu sëriñ bi tatakal ko jox ko yéegu waayam tubaarkàll moom it mu nuyoog Sénégal nuyoog àdduna waaye nuyoog mule mule waaye nuyoog patient yi nga xamante ni tubaarkàll ñu ngi partout dans le monde gis ngeen tout à l'heure rek macha allah mi ngi fi teg li nga xamante ne mooy 15 millions. jóge fële ca bitim réew tubaarkàlla nga xam ne sëriñ bi waaye lu ko waay jox ci àddiya rek fayoo ko ndax lim lay defal moo ëpp defe naa ne am na kàddu yoo ci bëgg a sànni balaa may jébbal kàddu gi ki nga xam ne mooy le roi médecine traditionnelle du monde waaw. Euh, hmm. dëgg la. kenn mënu ko fay. dëgg la li lay gêné li la koy tekki. kooku mënoo ko fay. dëgg la. yow da ngay wut kay xanaa. boutique bi lu ko gën a suqali rek. saa yow féexee rek am noo def ak moom. dëgg la ndax dafa mérité ñu jox jox aadé. kon mënuñu ko fay. loo fi joxe yi loo fi joxe. Hmm. war nga koo xeeb. dëgg la ci man li ma gis man. macha allah waaw. bari na yërmande macha allah nekk xale. ndeysaan maa sànq maa ko naan ba lekk nga. xale la <laughs> wallaay boobu ba ma koy topp ba ma koy suivre. waaw moom xale bi moom. nga lay ndeysaan di ko suivre di ko topp di ko topp di ko topp nekk xale bu ndaw bëggoo dara ci àdduna hmm. yow bëggoo dara faj nit rek moo la intéressé kese kese dëgg la bëggoo dara di moo tax ma ne ko mbaa lekk nga ndaxte dama lay dégg ci ndékki ngay jóge dëgg la wallaay xale bu tuuti wallaay ndeysaan sa moroom yaa ngi itteewoo yeneen wallaay yow itteewoo lu faj doomu aadama yàlla dina ko fay dëgg la dina ko fay sa njaboot incha allah yéen ñi koy jàppale bu leen réccu dara dëgg la continuer leen di jàpp bu baax doomu aadama dafa am solo la doomu aadama hmm. mooy àdduna dëgg la ki koy defar. Mhm. yàlla da koy fay. dëgg la continuer leen ci liggéey bi rek. dëgg la am na yàlla yokk xéewal yi. jërëjëf maa ngi fan ak wér. jërëjëf billahi wa rasul bi. macha allah mu ngi leen ba ci kanam. amiin amiin amiin incha allah rabbi. jërëjëf ñu ngi lay. wallaay jaajëf ñu ngi leen di ñaanal rek. amiin amiin amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu mu génne. mu mel ne rek du jóge ci xol ci xol lay dellu mm-hmm. waaye defe naa ne moom it ba mu dalee suivre dala euh, seetaan li nga xamante ne mooy euh, télé bi di TMS TV waaye yàgg suivre ki nga xam ne mooy Alaaji Thierno Mouleye Sow king of the king ndax defe naa ne keroog bi mu nee fi surtout ñu tase ci bunt bi woo lii mu wax léegi waxoon na ma ko nee na ma dama yàgg suivre sëriñ bi bëri nga ci ay morom parce que àdduna yëpp noonu la mooy li ma doon wax rek naan ku xeluwul ñëw rek di nga xelu ñëw tubaarkàlla ndeex di nga toll foo xamante ne bëgg-bëgg bañ-bañ alaaj mu lay Sow rek moo ci mën dara mooy am solution bi kooku nag mooy la maire Sarr di la bureau des dëmm waaye nag di sëtu Sogala ak Yoro Tengala ak Mima tengalaa kooku mooy alaaj mu lay Sow surtout làbb arrijéeri bi tubaarkàll nga xam ne fépp foo xamante ne lépp loo xamante ne feebar la tubaarkàll bu yàlla dogalee nga jàkkaarloog moom mu nekk ci yow moo xam muy rab wala muy dëmm wala muy jinne wala muy nooxóor wala lu mën a doon ci àdduna wala kumu kumu wala tëju tëju wala nga am problème place wala foo liggéey wala kàll foo toog doo fa yàgg ñëwal gisee ak alaaj ca lu mu lay sow tubaarkàlla bu la suuree sang la nga daal di am jàmm kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal nga yàgg fi lool ndax dund bi am na njëriñ macha allah ndax defe naa yaa ngi jàppale national waaye yaa ngi jàppale international bi parce que tubaarkàlla wax nga fi nga dalee ba fi nga yem waaye zéro défaite tubaarkàlla loo wone rek mu doon lu bees tàq neex nit ñi tubaarkàlla muy lu am solo. nga xam ne àdduna yëpp nga koy waxtaane vraiment parce que tu as montré ces preuves euh, devant les caméras devant le Sénégal Sénégal devant tout le mone ñuy gis li ngay def nga di ko wane jaaraan mu nekk lu am solo loo xam ne seule personne bi nga xam ne moo njëkk a def loolu ci médecine traditionnelle di euh, yaa ko njëkk a def muy lu loo xam ne honneur la vraiment tey félicitation lañ lay wax waaye tey su ñu amoon li nga xamante ne mooy trophée bu ñuy joxe alaaj seen mu lay sow yow lañ koy jox parce que wane nga ko ci faj wax nga ko sànq ci bëccëg parce que sëriñ si dañ leen daan xeep di leen tuutal ñuy dem ci kër jàmbur yi di wut fu ñu fanaan ak fu ñu yendu tubaarkàlla loolu yëpp yow yaa ko dindi indi fii imposé wane li nga xamante ne ni sëriñ nii la war a mel mooy sëriñ dafa war a noobul di war ci oto yu baax yi di am ci kër yu baax yi di xeeñ ci parfum yu neex yi di jël ci jasneer yu baax yi di ko ñëw di ko sol tubaarkàlla loolu yow yaay ki ko fi indi wane ne sëriñ nii la war a doxee nii la war a mel sëriñ bu génnee dañoo war a xam ne kii kat ah kuy xalam di sa jaayu waaye barke ba yaay borom ndax defe naa ne oustaz wax na ko léegi képp ku la ne kaay ma ñaanal la nga yokk na ko xool ba xam moom yokku na am yokkuwut waaye defe naa ne alaaj seen mu lay sow tubaarkàlla macha allah ñu ngi lay jëbbal kàddu gi di wax ne xër nañ ci yow waaye kontaan nañ ci yow ndax ànd ak sampion ànd ak gaynde dafa neex ndax euh, boo sa sëriñ bu defee jaloore boo koy nettali danga nga war a fier xam nga da nga war a nekk ku ku ku peser ku tegu parce que xam nga ne yow li ngay wax tubaarkàlla day euh, day dëggu gu wér goo xam ne àdduna yëpp teg nañ ci euh, seen bët moo tax tubaarkàlla ànd ak yow mooy li may wax dafa neex macha allah kon ma jël kàddu gi jëbal ko ki nga xam ne nag mooy la maréchal El Hadj Thierno Moule Sow ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay sëriñ bi jërëjëf. jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi mina seytaani rajim wala xawla wala xuwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla nag ñoo ngi julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën di mi def di suñu yaakaaru tey ëllëg gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna defe naa ne Matar macha allah soxna si vraiment wax na fi kàddu rafet te vraiment euh, cuuraay bi ak euh, sangat yi dafa am barke te dafa am njëriñ te wax la ne wax na ne tànk mi daan na metti vraiment yaram bi di diis mm-hmm. parce que yooyu yëpp ay mbir la ba ma ko seetalee wax naa ko li ko dal vraiment mu nekk moom it ku baax ku ma yàgg suivre nag ndax nag wax na dëgg ñun depuis ñu nekkee xale ñoo ngi ci faj bi waaw yàgg nañ di faj nag vraiment yàgg na di ñu suivre nag vraiment saa yu ñu laajtee daanaka ci ndekki rek la ñuy jaar ba nii nii nii ci ndekki laa jaar dama koo tàmm macha allah moo tax heure bu ne laay reer ndax ma lekk sonaluma ndax du dama yar suma bopp ci ci ci ci ci euh, su ma lekkee benn yoon rek mun naa toog ba bu ma neex ma lekk waaye nag ma madame Sow moo ngi fi dañuy togg togg yu baax démb rek cere bu neex la def vraiment cere bi nga xamante ne macha allah am na lépp dama ko ne tamxarit bi jàll na damaa namaat cere mu defalal ma cere bu baax vraiment macha allah comme nu ma ko waxee rek su ñu jëlee décision liggéey dañuy liggéey te nit bu ñu yaakaaree vraiment dañuy taxaw bu baax a baax dimbali ko parce que li ma wax rek yaakaar dafa foor rawatina moom mag la vraiment yàgg na ma di ma suivre te yàgg na bëgg ñu jëflante yàlla yàlla dogalu ko ba la ma ko la ma ko laaj ndeysaan góorgóorlu na lijjanti ko ba am ko muy deux millions mu ñëw jox ma ko vraiment am yaakaar ci man bu baax kon war naa ko mun a jàppale war naa ko mun a satisfaire ba mu yëg boppam bu baax a baax ba lu nekk ci yaramam bi deñ moo tax noonu laa def jaayante ak li nekk ci moom gis nga première rek ba ñu ko suuree dafa soulagé wu mu ne ba xam euh, cuuraay bi dafa am mante yàlla xam na ne amul mante waaye moom ci boppam moo yëg neex-neex parce que boo amee lu nekk ci yow sa yaram diis gann fasu vraiment doo mën a nekk si jàmm doo mën a nekk si salaam gis nga ba loolu teggee ko beneen nit ngay nekkaat da ngay mel ni kuy doog a juddu da ngay oyof toll da ngay yëg da ngay yëg da ngay yëg ab seddaay gis nga nee ne dafa yëg ab benn liiw ak seddaay kon loolu mooy mooy mooy cuuraay bi ak faj bi te nee naa la faj bi tame su may faj faj bi daf du man kese damay ànd ak jinne yi te nee naa la tey dama dama dama dama àbb kurus jinne yi defe naa ne bii wax naa leen dama àbb kurus macha allah taxaw bu baax parce que boo gisee saa yu may faj te kurus bi dafa am yu may wax dafa am yu may woote dafa am lu may wax pour lu nekk ci yaramu nit ki ñu teggi ko moo tax chaque jour euh, ngeen gis ni wala ma jékki-jékki téye bopp nit ki yëpp dafa am yu may wax yooyu yëpp dafa composé ak faj bi maanaam su ma faj duma bàyyi dara du ma bàyyi benn ruq mu sedd man noonu laay def maanaam lépp lu may def rek dama ciy dem ba jeex tàkk man noonu laay liggéeyee maanaam dama ciy liggéey avec amour avec plaisir ak nii kii kat yaakaarul kenn ku dul man kon moom yaakaaram warul mën a tase suma kër man noonu laay liggéeyee quoi moo tax su ma liggéey yombul ku ma jëflanteel foog nga gis résultat moo tax ñii ñi di joge Guinée di fi ñëw di jóge Mali di jóge Burkina ni nga ko waxee ci àll bi fu ne la joge di ñëw fii di faju di gis seen bopp wallaay dëgg la déjà tey mooy première rencontre maak moom bi ñu raconté euh, gannaaw bu mu indee addiye bi tey la ñu premier racontement bi mais actuellement mu ngi am jàmm xelam a ngi dal ndax na carrément am na lu bëri lu denc ci moom moom ci boppam waxal na ko làmmiñu boppam yëgal na ko boppam lii rek laa lañ doon ut lii rek la ñu bëggoon moo tax saa yu ñu nit joxee xaalisam vraiment du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg pour satisfaire nit ki. pour mu am jàmm am salaam comme nu mu ko waxee suñu vie yëpp ci ci lañ ko def. man sama vie yëpp ci laa ko def. dem maanaam dumay lu bari. bàyyi lu bari. am na lu bari li nga xamante ne ndeysaan xale yu góor yi dañ ciy jaar ak yu bari. waaye ñun dañoo dañoo dumay lépp. concentré ci wàllu faj bi concentré wu ci jàppale doomu aadama comme nu mu ko waxee rek suñu borom suñu fayee. defe naa ne macha allah. Euh, dañuy sant dinañu fay ba suñuy njabooti njaboot suñuy seeti seet ndax. faj bi ñuy def nii noble la maanaam muy médecin. muy docteur. muy médecine traditionnelle mooy li may def nii. nit ki jàq jaaxle. Hmm. tëdd guddi du mën a nelaw di xalaat. Hmm. am stress dem muy sonal ko fàtt ko du mën a nooy liggéey ko wala def ko ay njabar yu bon nga fexe ba teggil ko loolu ba muy dox oyof toll ah ba muy dox di mën a jaamu suñu borom parfois da ngay julli sax doo mën a julli di jaxase ràkk yi yooyu ñu la koy teg Hmm, di la hmm. di la jaxaseloo ba xam jàng nga faatiya wala jàngoo faatiya di la ruubeloo daal ba yow nekkatoo ci jàmm ba nit buy wax ak yow sax doo doo nekk yooyu yëpp ñu teg la ko nit teggi la loolu rek vraiment kooku kooku munoo ko fay comme nu mu ko waxee rek dëgg la dañuy gis ay deux million di gis trois millions quatre millions euh, du ñu xam ne loolu du fay bi maanaam santé n'est pas de prix wër wër amul njëg dëgg la amul njëg ndax li ñuy daj ñun vraiment di sacrifice ngir nit ki am wér parfois ñuy defante ak jinne yi defante ak dëmm yi xeex ak ñoom parfois nga dajak jinne yi wowle dajak dëmm yi wowle nga xamante ne da ngay xeex ak ñoom da ngay xeex ak ñoom parfois nga gis sax ni may génnee jinne yi day metti euh, parfois aussi ñoom ñii du ñu daanu dafa am ñu dul daanu waaye ñoom it day am ay jinne yi wowle ay jinne yi dëgër yi dërkiis da ngay defalante ak ñoom ci biir ba nga xamante ne carrément hmm. da yaakaar na ne faj bi du musa euh, doo ci mus am am ndam te fekk ne macha allah yàlla dalay may ndam parce que xam nga ne man du ma bàyyi dara te sama xeex du jeex macha allah noonu la ñoo ngi sant suñu borom bu baax vraiment noonu la jox nañ ko traitement yi di ko ñaanal bu baax jàmm ak salaam yokku ba yëg ko vraiment tamit ku baax la ndax euh, nit ki mën na la fay xaalis hmm. yaakaar ne àdduna la la jox waaye gis nga nee na lu ma la jox du dara loolu vraiment loo mën da nga koy def ci nit ki loolu moo tax man noonu laay liggéey man xol laay liggéey ak amuur ak bëgg ak jàppale ak ndam lépp lu ma li nga xamante ne su ma ci duggee du ma ci am ndam vraiment du ma ci dugg ndax namu ma dara yàlla teral na ma ba pare vraiment ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na yàlla gën a dëgëral ko gën ko bàyyi fii ba mu fekkee njëriñu njabootam gi eh, eh, eh, parce que moom bu moom bu ñu ko dimbalee ba pare njabootam aussi lay jàppale kon nag defe naa ne kontaan nañ bu baax di di nuyu ñu ñu seetaan di ñaanal réew mi jàmm yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ci Sénégal ci àdduna bi yëpp di nuyu sama taalibee nekk partout dans le monde macha allah Matar jërëjëf jërëjëf ngeen gis kàddu yooyu nga xamante ne tubaarkàlla moo bàyyeekoo ci le maréchal waaye bàyyeekoo ci ki nga xamante ne tubaarkàlla mooy bàyyi sëriñ si di alaaj seen lu mu lay sow tubaarkàlla nga xam ne neewoon naa leen jant la ku bañ mu tiw la bul dox ci kaw suuf kon mbokk yi ngeen teg foofu seen baaraam sur la TMS TV ci beneen numéro incha allahu rabbi fii ci clinique Daaru Laahi bu Alaaji Ceerno Moule Sow borom kun fayakun borom duwaa jaabi waaye borom ñaan ma nangu jërë ngeen jëf